doo jeele dara moo tax ma laajati dara nde du ma laajati dara kon mukk ngir am naa lu bir yawwaande ak dex nga te dex du doy du jeele mukk ndox moo tax ma naa dolli ma ndox te dolli mag wér ren jile may nu am nawet bu gën a jub bépp nawet te ëpp mbëg bépp nawet jàmm ak dugum na ni xasar areena ku sëm ni xasar murit yu nangu ni xasar mébét mu nekk ni xasar mooy sant nag cant gu sax te may nu naataange ju sax ju ànd ak cant gu sax bu nu tawat jigéeti sax tey ak ëllëg menn mbir mbooloo mi mbooloo mi nun ñi ñépp yal na nu am tawféex ak jagle faw ak mbir mu jum mu yéwén te yal na nuy ëpp tool ak tookër nu bañ doole ak not saa su kay fekke faw wi ya set doxal yépp biir ak biti yal nañu nuy wutta ke soppa ka jëkkante a dëkk fi nun yadee fi bañ yépp biir ak biti yal nañu nuy musloo ka mooy faw a kay tegee ka daw sunu ban saahir si yal na rafet baatin bi yal na ko gën mu gën fi gën lefi biir ak biti man ñi man nit ñépp yal nañu nuy naw saa yi nekk kañee nuy yokk faw wi galen fay yokk ñéppi galen jaaraama yal na sax ak jaajëf te yal nanu sax ci luy saxal jaajëf jaaraama guddalu fan wéru yaram yàlla na sax dàkkak lu koy taxa sax mbër yàlla na jéggal yëram dég reenu boole nu til ku nekk yàlla na di gëm ba yokk faw di gëm way yokk faw ak wey muy baax a kay sori bon ñun na nuy mujj ñépp ak seeni bu rafet te mujj ñépp gannaaw a cant cant ak yéen addina yàlla nañu tonnee tonni wépp ni wam jëbal nu faw ak yiwam wépp ak nenam yu mu nen ka dàqanal dàq bés béskat yi yàlla na melal koo gis bësal ko tegal jégal ko lépp yéen jëfal nu yow sunu boroom waroomi koom ak koom ñamal nu it yambu woom joxum xabam yépp nu moom ñamal nu nun yambu wu lam mamu ne feesaku lemam te naanagul lëf ci lemam xëpp nu lem gépp nu moom ñamal nu sax lu gën woom yambu wu nekk gën woom fapp moral te gën a woom kompañe fapp ak ña ko tiim def na ko ñii na ka ñee ku dul gis ku mu ñee te kenn du déggit ku mu mukk ci ñuy jàpp ak ñetti ba nan yi teeni ngërëm yu xëy ni dell ki ngërëm xaw ni dell ki dërëm yilaw yu niy musal ci juum jowal saxaara ki wagoom teeral fi nun yebbee ci ñoom yéere yi ñàkkati moroom jébbal nu yow xamoo moroom jowal saxaara ndam gu woom gulan junni bi wagoom teeral fi nen yebbil nu koom yu bari yaa karim géeju njariñ nga yow gu nu pakem ngërëm bu wér boo musal la gaaya ca war yépp ci diig ak ci musal nu fàww ci ñi bon tegal tànk yu ci bon bonu gu ak bon gu boo fal ci nun boo fal ci ñoom musal nu fàww ci ñi bon tegal tànk bi ci bon gu nu bon ak boo fal ci nun boo fal ci ñoom yàlla na nu for ci yow lu wér lu gën a wér lépp lu wér gën lu kenn masa far ci darajey ngeen ji xadiim yàlla na nu for ci yow dogub dugub bu rëy lool ak dogub gerte bu rëy lool ak ku sëb te mucc ci foom yàlla na nu for cër bu rafet ci yow ak gu rafet te dund dund gu rafet wér fan jub doom yàlla na nga fab lu gëni doom fab ko te lu gëni koom jox na ki doom ak koomi koom nangul nu yow sunu boroom yow ki nu bind ci nelaw ba mënu noo ñàkk nelaw faf nu musal bu nuy nelaw ak bu nu yeewoo ciy nelaw musal nu may nu yépp yiw ku gëmm musal ko yow ku yow may ko jàmm yow jamono teeyal ko xelaw ñun ñëpp teeyal nu xelaw teeyal sunuy barab xelaw nuy sant kay naata kelaw te jàmm rekk di gelaw ñun ñëpp may nu tooli mbég yu nangu lool ak këri mbég tey ëllëg yu wér te jag ak sa lu ñëpp naw ñun ñëpp def nu xejj buur te def nu wëkk néegi buur def nu it làmmiñu buur ak xol ba faf nu jëme kaw ñun ñëpp def nu géeji leer te def ci nun fakki leer ñii yaba kay déqeeke leer ci sunu biir ak a taxaw nun ñëpp def nu ñoo wuyu ñu penku ak soo wuyu te def nu it ñu la wuyu ñu seeni fan gudda ku yiw nun ñëpp def nu ñoo xorom ñu bari pepp ak xorom te bari ndox bari ngërëm saf sàpp raw mboolem ñaraw nun ñëpp def nu ñoo ma neel te def nu it ñi la fi neel te def nu faw ñoo fi neel labal nu nun ñëpp ci yow nun ñëpp def nu ñoo musal nun ñépp def nu ñoo musal nun ñépp def nu ñoo bégal ñuy mbég di dar faw wa kaaw nun ñépp walloonu njariñ lu réy lu sooxali njariñ ci sag téyeg barkeb sëriñ tuubaa ki aw fa mata aw naatal nu nun ñépp bu nu békkoorit bu wóor saxal nu ci topp gu goo nangu yow ki dul nelaw sëriñ bi gaayaa ngi rëbbi jigéen a kay dox di rëbbi ak jura kay wutu xëbe man bakke maa ngi lay rëbi xam naa ni yaa di ngeen te ku la jam jam wépp rab ku yal na nu jam sa faddu bi yal na nu fab sun dëggu bi teg ko ci kaw sa dëggu bi yow ki faban sa dëggu bi ko ci kaw dëggum na bi nanga nu may ndimal lu rëy te may nu taw féexit gu rëy gatandu noo ki may yu rëy yaa gën a xam gën a na sunu itte yi kawe sunuy maqaama it kawe nuy kawe bay gën a kawe ku ne ci biir ak biti nanga nu farle ba nu uub tey ak ëllëg làmb ju jib def nu mbër mu yaru jub mu dul bajan tuudu tabe te dëgg def nu am muriid bu wecc junni bi muriid yoo xam ni seenu muriid saf na la saf yonent bi teg nu ca kaw sunuy moroom fa yàlla kay sunu boroom ak fa kanam sunuy moroom nuy gaayu gën yu dul tëbe bëccëg bu jot nu kaw guddi gu jot nu kaw waxtu wu nu kaw jàpp nu ak sa loxo bi foo tollu deenu jëme kaw ànd ak bég ak jàmm ku yiw nuy sant kay jëm kaw li nii yow sang bi tirik saa na gën ci nit fegal ci saa bépp jataay saytaane ak mooy ak sobe fegal nu lor ak sababam te may nu yiw ak sababam ak sa ngërëm ak sababam wuyu nu yow la nuy rëbi addina yal na ci sun xol sedd bis na xolub moosaa ba sedd ca bis boobee bañam yalabee dax gaani ceexi bañam rey wacc kooku nitam ñu ci raw muslu dàquk lem te dàqali bee ab sang yal nay tabee kay tabbi waxtu jot ba ñépp naa masunoo xam sax ni nii la tabee idrisa isa xodar idyaasa yal nañu nuy may noon ci ñoomu texee ku graw bu gaynde tabee ñaa yal na dox sunu digg gaynde saa yu tabee mu tegginoo ku ëyam wey mooy sunu mbarabee kay ubbi yal nanu ubbil wunti àjjana nun afal te jàppal nu mboolem wunti naari ubee kay hubbi yal nanu hubbil wunti àjjana nun afal te jàppal nu mboolem wunti naari ubee nawet bu ñëw yal na nuy teewe ñëwam bu rafet tey ëpp nit ñépp gerteeku sabag dugubee lu man di am yal na ndam am jàmm am tono am mu ak njariñ am ngërëm sax ñépp way te jubee jub yal na sax teg juboo sax dàkke dàkke ku yiw tiraanga sax ku jag yoo tax ndamam ba nga bee bon yal na wey yàqu wey lor wey ba dootuñu ñëw tey ak ëllëg ñépp faf nuy ñeeka jóg di dabee waa fenk waa soow ak waa fépp yàlla nañu nuy doyloo ke soppa karaatee kay wutee kërë bee ñoon ñépp yàlla na sunuy bañ lab ci dex gu ñu bañ nu mucc mucc la jël mboolem jur ñalabee yàlla nañu fara go gu xam tafek tawat gu nar a xam mu teggi wéy nu mucc am lépp lu sedd sunu xol yàlla nu xam ceebam njariñ mu ñàkk lor bari njariñ ci darajay kaam njariñ ba tax xelum ñi bona dal yal nañu jox ko ne ba noppi nag dolli ko gëm gu yéemu lool ak ñu ko gëm lu dal ma di ko ndam yal na nuy bii wakke dal la sedd xol yal na nu dal ci bopp dal gu sedd ba ñenn joy te bëgg a dal yal na nu yoorekat bi yoor caabi ngërëm ya gën foor caabi ngërëm ya foor foor bëgg ni taax ak alal katabe am yal na ni ciix ñépp yiwam ni nu ko foox nu waaru sant ni ko ciix mu yokk nuy néega kelal ka jafe dagaana am la jafe laa dagaana am fa jafe laa dagaana am yal na nu fab yii yett jël yii yett daala jërë jël ku ci ne yal nu ko jël mu faf nu jël nu faf ko jël mu def nu jël nu def ko jël yal na njariñ yi wala ngaan ku nekk am la mu dagaan lépp ak lu gën la mu dagaan seddu xolam yee ko ca njël yal nañu yeesal sunu gëm teqte dolli sunu gëm fawte naatal sunu gëm yaatal nu boole nu xajal yal nay ngërëm taw ba wale yal nay dërëm taw ba wale ndam xetti fépp wale foo toll ñuy foog a kañal yal na nu jaamu gëtë am yépp yiwu am këtë xaraw jépp lor ju këtë jot ci lu sedd sunu xol ma saa sëriñ bile te saa moyit ñi le aw ma lu dul sëriñ bi lee ak saa murit yi lee ma wër sama sëriñ defar na ma samay murit dimbali ma man sant ñépp war na ma ku ne defal na ma lu wér fa fayal sama sëriñ aw yiw te dolli ko njariñ te may samay murit njariñ ak lépp luy tax ñu sawar sunu sëriñ yàlla na bég sunuy murit yàlla nañu bég faw te jag teeg ëllëg te bañ a yokki bañ a war mboolem ñu may sutura yal nañu taqoo sutura faw te teggi sawara ak gàcce ak sépp saxar samay murit wàcc nañu ngir kenn du wax siisu nañu te kenn du wax gàntu nañu yal nañu xam barkee ku tur fam nañu kër gépp defar yal nañu boole seeni mbir defar ba dootu yàqu far ñu gudd fan wér sori lor noor ak nawet duñu taxaw ci sama mbir lañuy taxaw yal na sëriñ tuuba taxaw ci seeni mbir taxaw gu bir yal na sëriñ tuuba taxaw ci seeni mbir nag te taxaw ci sunu mbir gépp taxaw te dolli nooti sox bu ñor soxam bi yal na daldi jib buy jib sunuy pexe di jub tëlëf du jib bii sox a jub saasu jibee jubale mbir yal na ni tes soxum ngërëm bu tax nu bég sant gërëm moom mu bég sant gërëm mbég ni wesaram ñépp di fot yal na nu may waamee njariñ yu nuy musal ak a jariñ tey dàkku lépp lu nu bañ di naatali xol ak cër xat mi le yal na wéeg sunuy tawat tey ak ëllëg at mi ñëwit yal na ñëw ak sunuy mbég ak sunuy ngërëm mi le teru na ci sunuy ngërëm teru sunuy mbégit na ci teru ku seral ci ab xolam dalal ci am xelam tefat ci nag jépp loram tefar jubal ci ay mbiram yépp te yokku aw fanam fabal ndoxum jàmm ku yiw sotti ko ngir yàlla ci kaw ay wi te wallu noo ki iw te jox ko nekk mébétam na jàmm dikk ju bari xiiwal yi dikk te bari cant yi dikk te bari te bañ a tee tuxoo ki li dale ba àjjana far nu ko soppil àjjana mu nekk nag ca àjjana di wéy ba tabbi jeenu jëm fegal nu laajakub layoo ak luy waral laaj ak layoog doy loonu wëllis di layoo teeg ëllëg te may nu ndam may nu wér ak wér ci ndigal addunda ko topp ndigal duudu li mbég bu mu dal dàkkul nu ibliis ak ñoñam luy tax nu bég ci sunu xol bay sant rekk na nu dal te lu ko mooy dal dàkkul nu xay faw ak ndawam dàkkul nu ràgg ak mitiit jëkki jógug ràgg ak mitiit musal nu it ci mépp tiit tey ak ëllëg jëkkum luy wàññi gëm na teg gi luy rekki gëm na teg gi wéy luy yàq xel na teg gi wéy dakkul nii jëkkum ñëwam musal nu jëkkuk loru may nu bi yarit jëkkuk beru defar nu jëkkuk asaru ngir yàlla daal ak yonnenam naxay wi dal di fay kamaj ba mel ni xel dootu ko daj te mu fay kamaj ba mel ni sax musul ay yàgg naa takk nga fay ay wacca dëeru yaa ko fay ay wacca koongo yaa ko fay ay yi nga fay yàllaa ko xam faray ma see takk nga fay yàlla mi tax ngay dox di fay yàlla na la fay ak pay gu rëy gu dul wékkum xelam budul kono yow nu loru budul kono yow nu waru yow ki nu tee loru waru war nanu laa sant ndaxam boo fi newul woon naka mbir boo fi newul woon jépp lor dal nu te kon lëf du ko jar dakkul nga nuy lor may nu gëm ak cant yaa ko mat a jox addiye yaa ko mat a jox ko wax lu dul li ma la wax day waaju sànku ju gëlëm yaa mat a jox mbir ak alal jox naa la saa lépp fabal def ma lar bu ñu musal bu gudd fan wiru yaram nanga ma def sablar bu jeeb tàkk ci yow nag ni nga jee ci Mustapha ak ni nga jee ci yàlla mii ba xam nga yow ngeen ji képp kuy liggéey te gën ko nekk ab liggéey sarax ma ngeen ji ab liggéey bu gën a jub bépp liggéey koo xam ni kii dafay liggéey day bëgg koy laajub liggéey moo tax koy laajub liggéey mu jox la nag te def la waay koo xam ni jox na la liggéey te nga jubal booba liggéey mu daldi lay dollib liggéey te jox la ay liggéeyukaay ku bëgg aw nit na liggéey ku bëgg ay yëf na liggéey koo xam ni kii bëggul liggéey du ñàkk yëf du ñàkk gaay ku bëgg xam-xam na liggéey ku bëgg ak jur na liggéey ku bëgg yàlla na liggéey ku bëgg lëf na ba jataay ku bëgg xam lu leew te teey na bay faw ab jataay ku bayiwul faw jataay du xam lu lew du xam lu teey donte dangaa bëggoon xaraam tey jekki sax doo am araam kuy bëgg nag lu gën aram tey jekki yow tixit nga saay sàcc bu jekki rekk sax du gis lu muy faraka sex ku jekki sax jekki du sax bul jekki boo bëggee mi daay kuy jekki kët du am mi daay donte dangaa xamoon mi daay tey jekki it ñàkk mi daay wéyal ba àgg ngeen ji feey téwé ba seeru xej buur xej yi yóbbu la fa buur nga àgg nag fa ngeen ji buur mu di la may jàmm ka képp ku ñàkk bii palaas ndaxam amul benn palaas yal na nu xam bile palaas ba joxe ay taax ak njaay yal na nu gudd a gudd fan tey dafa def lépp lu gën tey moya mooy lépp lu bon tey gën a gën ku ne liggéey tiit ak lor yal na nu moy tey ak ëllëg te yal na mooy bépp jullit te yal na mooy sunuy kër ak sunuy liggéey sëriñ bi def masab jëneer bu réeree te leer ba dee fi jéene sama leer fu mat doxub junni bi naa tàkk man bay jër te yànje nag bay bér ci lu taxul may kër di jóg a kay dox a këréer war na ma tàkk bay bérex ba duma fay mukkati sax te ket fegal ma lori wax ak lori jëf te di ma xaar képp ku nekk luy loram lépp lu nekk luy loram fépp fu nekk luy loram fegal ma feg gu kaar képp ku nekk aw yiwam lépp lu nekk aw yiwam képp nekk aw yiwam may ma ko lii yow laa ko xaar man deema tijjil wunti yiw te dimaa tijjee wunti yiw may ku ñu ubbil wunti yiw tey ku tëjeefal wunti naar bépp barab bu ma ni jaas yiw a ki ni jaas te bu fa lor ni jaas lu dul mbégit bu jaar béréb bu may nekk ka jëm bëgg na lu dee si sip bu mu fa am bu mu fa jëm bu mu fa gaar fu ma ne lor yéen a faju yi yépp na faju wun ci tawar yéen a tëju tey ak ëllëg tëju gu dër xëy naa la tey di la dagaan yow ngeen jikkuy mën a dagaan te gën ku daa duy bagaan ak a mayab gaar ak taxaar waanaa la ree ma te wuyu yow goo wuyoo yàlla wuyu yeneen ba it daldi wuyu dëgg wuyul wuyu gu leer dee ma bégal te di ma ree ngir waxtu wooree yàlla ree yoneen bayit booree mu ree te seeni ree gën fukk gar man sedd may mbéga ki ree te foo ma gis nanga ma ree may dolli kuy mbéga ki ree saa xol di sedd ni guyaar te may ma barkeb weeru koor te def ma nag may weeru koor tey jëmmi guddi weeru koor guréy ga gën junni bi weer yal na nu wóote faw wala yooba te bañ a wóote mukk nu yooba bu xaj yey teew buurub xaras teew mépp mbégam teew ànd ak janoo ba muy gis ku nekk moom it nekk gis ko ñu bokk santante booba mu faf nu yoo leen yërmane may leen lu nekk wis leen cay jant booba ñu fay ko bokk gërëm ko du seeni ko def la ko sooba ca kaw aras lay feeñe ni tey kuy aajo na wax may fajag wi sooba ñu ni ngërëm daal lanu la soxlaal mu jox ngërëm daal ñépp ak daloo del ni koy laaj na wax lu muy laaj lépp lu ñuy laaj mi ngi ki booba ñépp ni jàkk jëmmam ja rekk képp ku nekk mel ni luuba muy feeñ akay leer nib jantaak weer may ñépp ak leer bisub safoo ba lii dàq fapp àjjana jépp yal na nu jàpp lépp yal na nu fekke faw te bañ a fekke mukk la yooba yàllaa ka barkeel yal na nu barkeel te ñu mu barkeel bokk nu barkeel may yal na nu may teel te ñu mu may teel bokk nu may teel képp ku ñuy leel ak gaaya muy ak gaaya koy leel yal nañu niy leel képp ku ñuy deel ak gaaya muy deel ak gaaya koy deel yal nañu nuy deel képp ku ñuy reel ak gaaya muy reel ak gaaya koy réel yal nañu nuy réel ko def yaakaar ak ñamu yaakaar ak ña yaakaar yal nañu nuy ñeel yal nañu rëppeel saytaane rëppeel mbër ya mu rëppeel ak ya ko rëppeel yal nañu detteel bakkante detteel mbër ya mu detteel ak ya ko detteel yal nañu not lool addina ji lool te ëpp ndam lool téeméeri dammeel yàlla sa banneex nay sunu banneex nu bokk ci banneex faw ak nammeel natal nu banneex te def sa banneex muy sunu banneex yow la nu lonkeel yow lu la hitteel yal na nu hitteel te lu nu hitteel yal na la hitteel barab bu nuy sax yal na fa gàncax gu set doxol sax ak diine nuy béel yal na sunuy tool nangu rafet lool yëgg a lool nu mucc barkeel sëriñ bi yow mii sarax ma man mii sa man mii janaa la yow mii banaa lu dul yow dëdd lu dul yow fàtte lu dul yow yërëm nu yow mii njagam damaa bon baraw kodaa bon yaa gën ko daa gën nu yow mii dolli nu ak wér dolli nu ak xér dolli nu ak jur ak itte yow mii dolli nu ay mbég dolli nu ak jag dolli nu ak yëg-yëgal nu yow mii dolli nu am xel dolli nu ak pal dolli nu njébbal mu bari yow mi dolli nu aw fit dolli nu aw nit dolli nu ak nit notal nu yow mi wargaa ki siw kër na bari sun kër te dëkk sun kër wuyu nu yow mburoo ki miskit nanga nu koy yët te bu nu koy wut wutal nu yow mi ki ceebak ndimoo ki gàttak tàndarma it nag xëpp nu yow ngir jëmmi yàlla may nu nu xam la te lu nu soxla fajal nu yow mii lu dee fi soxla nan làq loola ba noppi xam la te am la yow mii kafeeki naanaa ak keesi ak déggi maanaa may nu ko yow mii diwa ki yàpp ak meewa ki mbaanik gëléema kiy indil nu yow guddi gu neeti bëccëg bu neeti waxtu wu neeti gërëm nu yow mii taat mu neeti weerit wu neeti ak saasu neeti dolli nu yow mii fu mu fu neeti ak foofu neeti ak noogu neeti bëggal nu yow mii gërëm nu yow mii dolli nu yow mii bëggal nu yow mii saxal ko yow mii barkee ki wërsëg ak jàmm kiy mbég ak dundakuk jag yulil nu yow mii natoo ki kër kër ak lakk lay kër ak néewi waa kër fegal nu yow mii lu nekk xam nga lu nekk am nga lu nekk man nga defal nu yow mii na nga nu barkeel na nu may paal na nga nu far baal te far nu yow mii xaw ma lu dul yow aw ma lu dul yow banaa lu dul yow jàpp la yow mii banaa samay baay bàyyi samay yaay def la ndey ak baay bir na la yow mii man maa fi gën baay ngir yaa di saa baay te kenn amul baay bu mel ni yow mii man sant naa la te fonk naa la te sopp naa la sopp ma yow mii mbakke yàllante sunu diggante di farukante ma way la yow mii bu ma xamul woon nit kenn sax man te xam la kon nga doy ma yow mii man dama jaay maam ak ndey baay fab seeni kër jaay jënde la yow mii yal naa la lakk kon duma jàq te duma yàq sa mi yow naa sedd sab xol nga sedd saa xol te fam man rabbal sa xol bi yow mii naa sedd sa xol nga sedd saa te fam ma tabbal sa xol bi yow mii naa dëkke sa xol nga dëkke saa nga fam ma nag jël ma jël la yow mii ma jël la man mii nga jël ma yow mii ma xam la man mii nga xam ma yow mii saafan wi jàppal guddal te naatal lépp te baaxal dégg ko yow mii fegal ma am ndog fegal ma kuy dog fegal ma luy musal ma yow mii ma yam nit ma lor nit ma xas nit ak waru ko yow mii fegal ma jëw mii fegal ma fen mii fegal ma bon mii ngir yàlla yow mii fegal ma njistal ma sellal baa man sellal sa lépp yow mii fegal ma njistal te may ma sellal baa man sellal sa lépp yow te may ma ab yar ngiraam nga ab yar bay may ab may ma ko yow mii sarax nu teggiin yaa xame teggiin yaa rëyi teggiin billaahi yow mii saytu ma yow mii sam ma yow mii ma yow mii wamat ma yow bu ma bàyyeeti may sànku jeeti fu ma fu neeti wamat ma yow mii man dee ma jógloo te dee ma doxaloo te dee ma xawloo foo bëgg yow mii te dee ma defloo te dee ma wax loo te dee ma fas loo loo bëgg yow mi te dee ma wut loo te dee ma xam loo te dee ma fas loo loo bëgg yow mii te dee ma xam loo fi sama xol loo ma tere ak loo ma sant yow mi te ku ma jox lëf na ko jox lëf ku ma joxul lëf nga jox ma yow mi te ku ma may xel na ko may xel ku ma mayul xel may ma ko yow mi te ku ma reeloo na nga ko reeloo te ku ma merloo bégloo ma yow mi ku ma gërëmloo nan ko gërëmloo te ku ma bégloo bégloo ko yow mi te ku ma dëddu yow bu ma dëddu sa ñàkk dëddu doy na ma yow te ku ma jublu na nga ko jublu te nan ko joxlu doy sëkk yow mi te naa la sant na nga ma sant te ku sant sant ko yow te ku ma gotti yow bu ma gotti sa ñàkk gotti doy na ma yow mi te ma jaaxal yow ma jaaxal sa ñàkk a jaaxal doy na ma yow mii te ku ma réere yow bu ma réere sa ñàkk na ma yow mii te ma te ku ma noppal nanga ko noppal te nangul nangul ko yow mii te ma guural yow ma féexal te ku ma féexal ko yow mii te ma gantu yow bu ma gantu sa ñàkk gantu doy na ma yow mii maa ngoogu rekk yaa ngoogu rekk wax naa rekk man yépp yow mi te man nga lépp atam nga lépp defal ma lépp tefar ma yow mi ku ma siyaara nang ko siyaara te may ko daara juyee mu yow mi ku ma ko liggéeyal tefar ko seexal gënee ko yow mi nekkal di man mii ma nee di yow mi nga ne di man mii ma nee di yow mi ma far di yow nga far di man mii ba nga di man mii ba ma di yow mii nu far di lenn te far di kenn sun mbir di lenn nag fawwu yow mii fegal ma ak juum fegal ma ak luum fegal ma ay góom ak wopp yow fegal nu ak yoom te may nu ay koom yu ànd ak doom yu sell yow mii fegal nu rafle ak bokki rafle te bu ma jeele daraxat yow te may ma ak tab te may ma ak jub te may ma may xëpp ku nekk yow mii fegal ma aw tiis fegal ma ak xiis fegal ma ak tiis ak bodde yow mii fegal ma aw tiis ak xiis fegal ma ak yow mii jay fegal ma ak say ak jinne yow fegal nu waxteef fegal nu ab xiif fegal nu xayet soof nu yow mi fegal nu waxteef fegal nu ab xiif fegal nu ak safal nu yow mi fegal nu yéefar fegal nu kéefar faral nu kéefar ngir yàlla yow mi te may nu am ndox aajo na num ndox man ngaa mayam ndox tawal nu yow dindil nu mar wi nu xay wi te andi taw bi yow mi yaa jige yaa fa yàlla waxal nu yàlla mu xetti yow mii xetti gu ànd ak yërmande ànd ak sutura sun jàmm yow mii yow rekk lan xam yow rekk xam yow rekk lan gëm wallu nu yow topp nga yàlla jaamu nga yàlla te xam nga yàlla mu xam la yow mii lum wax nga def ko loo wax mu def ko yaa ngi mu ngoogu def loo ko yow njagam dama bon mbaama barik bon ab sang day gën jaamam ba yow mi di kenn xéewal xéewal gi jeexul xéewal gi xaajul fa yàlla yow mi tey boonu nee nu dolli koy gëm boonu newul xam nu gëm la yow mi bun la masaa laaj nga jox nu lan laaj dewoo ko waaj yaa tedd yow mi jox nu li nuy laaj tayit tebul waaj ngir dooni tug waaj gaawe nu yow mi may nga nu ndox xaat dàq nga mara xaat andi nga yiw yaa gore yow mi gisuma ngay laaj te gis laaj nga fab la muy laaj jox ko ko yow mi gisuma ngay moy te gis ku lay moy nga dolli ko may yëgal ko yow mi amula ab kem te doo amub kem yëgal ni sab kem jafe na yow mi yaa mata yaakaar doo tasi yaakaar te waa lay xaar doo loru yow gisuma ngay laaj te ku lay laaj nga sab la laaj jox ko ko yow mii gisuma ngay moy te ku lay moy nga dolli koog may jégal ko yow mii amula ab kem te doo amub kem yëgal ni sab kem jafe na yow mii yaa mata yaakaar doo tasi yaakaar te waaju lay xaar du loro yow doo fekke gàcca xamula gàcca foo dégge gàcca faji ko yow mii gàcceel daa rey te dootu rey tey ngir danga ko rey suuli ko yow mii yal na la yàlla fay fay gu jàll sa jëf te jàll sa njortu yow mii yal na ni jàkk yiwu mu sàkk te ni la jàkk may la ko yow mii te yal na lay may mbakke akay fay ba nga ni lii day ëpp yow mii yaa àgg yow mii sakkal yow te jox ma yow mii lu bari yow yow rekk a fii buur yow rekk xam fal nu yow saakem yoyoowul xam naa ni ak fal waane dangaa fal ku nekk yow mii fal nga ko jàngul fal ku la géeyul fal ku la toppul yaata be yow mii lii tax samam xel di daj amuk fal ngir yow dangaa fal koo feeru yow mii yow yaa di aw yaa bari aw yiw nga aw fu nekk yow mii te kër yi taana ban lii taana te lépp yow mii al yi taana te kër yi taana ban lii bég na te lépp yow mii tooyal nga xol yi dolli nga gëm yi defaral nga mbër yi yëqu la yow mii budul ko nag yow kenn du xamu yiw kenn du xamu yiw yaa indi yiw mii yaa xame yiw mii yaa saytu yiw mii yow yaa di mii yiw moo di mii ragal nga yàlla teral nga yàlla te jox nga yàlla akam ji yow mii somp la yàlla moyu la yàlla fobu la yàlla ni xër yow mii moo di sa waajaay moo di sa sëlmaay moo sa kiiraay te lépp yow mii toolam bi ngay xëy di gon sa kay bay te laajul ak pay yaru nga yow mii bayoo ngirug pay bayoo ngirug may lëf taxulay bay lu sopp yow yaa jiitu gaaya yor seeni raaya di ba yegg yow mii yanen ba fab la yóbbu fa yàlla yàlla gërëm la ba fal la yow mii malaaka seere yanen ya seere ku nekk seere safal ga yow mii nga del si fiiti dinu lijjanti aka bijjanti nderaw nga yow mii jaaraama ban ba um nga sa lamb solal sa mbubbu siggi nga yow mii yow rekk wax kenn dootu wax sax lu dul li ngay wax yéena nga yow mi la jox lii te wut lii xam ko yëgal lii te sant yow mii nun noo ngi sant tey dogi ngant nangul nu ngant yaaram nga yow mii amunu lëf nun mënunu lëf nun loonu defal nun sag baaxe yow noo ngi fi yow daal di xam bu sab taal sarax daal sa des wu yow noo ngi di seetaan noo ngi di xaaraan noo ngi di yalwaan sarax nu yow sarax nu ay réew yu rëy yu nuy xéew ngir yàlla fi géew nu digle yow muy digle aw yiw tey def na bu wiiw tey wax na bu wiiw ba xam la yow mi alhamdulillah nan sant yàlla sant yeneen ba sant la yow mi yaa tax nu am lii yaa nu defal lii yaa nu sarax lii sëriñ bi yow naa sant yàlla lu bari ak yonenam ba lu bari ci saa sëriñ bii lu bari ngir moo waral ma xam dara burul kon ak sëriñ bile neefaa ma tey wéyal fële ak naa ma doxal fële te naa ma yow xamoo dara ku la fàggul lii sant ko ku la defal lii sopp ko te fab sa lépp may ko ko ba doo desee far dara may yoma xam-xam alal akay murit yu may dawal fawwa ka aw sama ndigal mbakke defeeloo ma dara man yaa ma may lépp ngëneel yaa ma fegal gépp yabeel yaa mantol gépp noteel yaa tax ma tekki man dara yaa ma ta yaa ma ta yaa ma ta yaa ma ta yaa ma ta sa ngëm yow rekk yaa tekki dara ko tekki la fi yaa ko waral ku tane nit yaa ko waral ku man la yaa ko waral daaw na gis ku man dara gàcce du dal waaju la xam gàcce du dal waaju la xam gàcce du dal waaju la gëm yow kenn du wax fajoo dara aajo yi yëpp yaa ko faj jàngoro yëpp yaa ko faj gàcce yi yëpp yaa faj koo fajal nga ko dara man ñi dama diisoon a diis bay raama kii tiis ak diis nga dikk teggi sama siis yëpp teggal loo ma dara yow ku la bëggul te ku la deful nawle xamul te ku la santul góorewul ku ne defal nga ko dara naar ak wala farek seer ak tëgg kii rab ak ki géer fegal nga képp gépp réer ba noppi may ko dara naar ak wala séréer ak tëgg kii rabba ki géer fegal nga képp gépp réer ba noppi may ko dara déega ngi nii jajja ngi nii dajaa ngi nii toola ngi nii yow di dund yaa ngi nii naanal te lekk te bay déega ngi daggaa ne fële janja ngi toola ne fële niki àllaa xëre jëlee fa dee fi seeroo gépp faj ku jàppi déegam gasi ko te jàppi sàqam bay ko bu ëllëgee képp ku ko gis fekk koo ki fay rëy addina mi du sunu kër alaaxiraa di sunu kër jaayal sa kër gi jënd kër gële balaa sab dundawey sa kër gi toppe ko ndigal sab surga toppe ko ndigal sa lépp toppe ko ndigal tirit bul def lu ko moy xamal ni loo toppe ndigal loolale moo di sa alal loolu toppewul yow nag ndigal moo moo nii la wax ji day dëkk nga nee ngir maa ngi nii saxaara ngi paasa ngi nii yóbbala ngi njiita ngi lu kenn deeti defu lay ku def lu dul jóg dugg ko te fab sa mbir jébbali ko te xam-xam ak bàyyiku boo dee layoo dee fi layay sëriñ bi may nu bàyyiku mbàkke te may nu soppiku te may nu ak yëkkatiku gu ànd ak ndam ak way may nu sa bopp sa ngërëm faw ba waaju nu gërëm yawit nga dal di koy gërëm te dëgg lii far nu ko may jógal xaral nu feeti baax ngir yaanu daa xarali baax ba noo ngi lay xarlooti baax xaral nu ay baaxati tey ñun yàlla na nuy lor di daw nuy dor lawet fu nu jëm te yàlla na nuy yiw di wut nuy yiw yiwit fu nu jëm ñun yàlla na nuy lor di daw nuy daw lowet fu nu jëm te yàlla na nu yiw di wut nuy wut yiw fu nu jëm te yàlla na nuy yiw di di gis nuy gis yiw fu nu jëm te yàlla na nuy yiw di for nuy for yiw fu nu jëm te yàlla bun jenn lor daf yàlla bun ko dabit te na nu yiw di dab nuy dab te yàlla na nuy feesa fees ak ay ngëneel ak yiw te yàlla na nuy mbég di raasee kay xalab fu nu jëm yàlla nan la xam am gu wér yow ban ba kiy maye yiw ba fa soree loral nuy andi lor fu nu jëm fegal nu lor te fagit luy tax nu déggati lor bun teeru mu këti lor mbaa xeetu lor fu nu jëm faral nu tey jépp lor yoo xam ne mi ngi fi nun fegal nu jépp lor guy dikk fu mën a jëm bayal ba war nu bu lay tàkkit du jëm fu nu jëm du tàkke fenn nit ba jëm fu nekk mbaa fu nu jëm bayal ba war nu ba luy tàkkit du tàkke fi nun du tàkke fenn nit ba jëm fu nekk mbaa fu nu jëm musal nu faw ba lor dootul jigéeti barab bu nekk mu këti ak mboolem barab bu mu jëm sunu murit dee ko may luy dolli fawu gëmam te dee ko wan luy taxit njortam rafet fu mu jëm nang koy bégal ak tooyal ab xolam ba du wow fegal ko xiifa ku mar ak gépp mooy fu mu jëm may ko yerit may ko xam-xam may ko sell gu mat te may ko wettalu biir ak biti fu mu mën a jëm te may ko soxna su jub ak jikko yit ju rafet bu dee jigéen nga may ko sang fu mu mën a jëm koo xam ni sopp na maslëf mbaamu yéena ma yiw fajal ko lool te fajal koy aajo fu mu a jëm koo xam ni sopp ma it soppil ma xol ba ba muy def saa xarit mbaate muy def saa fu ma jëm fegal ma it lori bépp soppe ak tilimam fegal ko it sama lor ak saa tilim fu mu jëm yaa saytu mbàkke sa yëf yi jox nu jox sunu kok te soppi jant nuy leeral barab bu nu jëm mboolem ku may topp man lii rekk laa ko mënal ndeew ma la bamba mi am moo fi jox ko fi am ku lii doyul na fa dem jox koy mbiram ma nga ne wax naa lu wér li fi des kat gaa yi yéena ko xam juraale laa man ndeman ak suq laa duma mbër mbër maa ngi nii yéen a ngi jox naa ko seeni ngërëm te mbër mi xam na ni fajloo naa ko seeni loret ak seeni aajo te lii doy naa defal ka am naa sant nañ ndaxte dem lee am na waa ji mënul wax jiite ngee jugu man kat sant naa li am ngir ba man ba koy gis xaw ma itam te mooma hubbit ba maa ngi tey di xam ak am diiru li may dund warlu naa ko way wu rafet bu ànd akoo tagg ak cant ak ngërëm fu ma jëm ngir sopp jëmmam ji gën jëmmi ku dee fi ci sag bët mbaate dee fi dégg ak nopp kii mata jëm ku jóg wutit sang réerul naa gulit gëlëmul te kat muy lu waande sangub sang yee mata jëpp te mbàkke yow yaa di géej ak dex te noo ngi fi yow ngir yàlla moom def nu dex buy dàqu mara fu mu jëm fegal nu dëq fegal nu day fegal nu farit nag nuy bégal ak a dolli ndox fu nuy mën a jëm fu mu toll gaaya fa dee ak gaaya dundu na bég garab yi bég suuf it bég nuy mbégum fu nu jëm bun jëm fu ak moy di jëm bu moy di jëm fu nu jëm mun may nu nuy topp akay naatal barab bu nu jëm tegal nu kuy moy tegal nu moy te faral li moy ba xam ni dootu nu moy kuy moy du jëm fu nu jëm mboolem taxee te ngërëm yàlla na nga ko fam ni nu am te may nu ak topp may nuy toppkat fu nu jëm te yàlla na nangu sun jëf yépp ak sunu wax tey nangu sun wesaar ak sun way fu nuy mën a jëm lu nuy yëngoo ka dal nay dëgg-dëgg gisa mbég lu nuy bawoo kay gërëm nag nay ngërëm lu nu jëm te yàlla na nuy yow yow ngay yow ànd di wéy ñu jëm barab ba nga jëm ngay jëm barab ba nu jëm te na ngay yow yow nga yow nu ànd di wéy ñu jëm barab ba nga jëm ngay jëm barab ba nu jëm yanan gërëm say mbirit na ngay gërëm sunu mbir yanan gërëm fa nga jëm it ngay gërëm fa nu jëm foo fuy jëm ak fu nu fuy jëm nan yóbboo soog a jëm ngay door a jëm fa nga jëm nuy door a jëm fa nu jëm loo wax lu nay lanu wax loo def lu nay lanu def loo fas lu nay lanu fas foo jëm lu nay fa nu jëm loon wax lu nay la nga wax loon def lu nay la nga def loon fas lu nay la nga fas fu nu jëm lu nay fa nga jëm foo jëm lu nay fu nu jëm fu nu jëm lu nay fa nga jëm nan bokk faw fu nuy jëm looti ak fu nu jëm loo jëm lu nay la nu jëm lu jëm lu nay la nga jëm bun wóote mukk lu nuy jëm looti mbaa lu nu jëm loo nekk nan ko gërëm lu nekk nan ko gërëm loo yëngu nan ko gërëm lu nu yëngu nan ko gërëm <clears throat> te boo dalee nu gërëm it bun dalee nga gërëm te boo jógee nu gërëm fun dëkk it nga gërëm sun lépp nay sa ngërëm sun fépp nay sa ngërëm fu nuy tuxoo nga gërëm it fun jógee nga gërëm foo jekki nan ko gërëm fun jekki nan ko gërëm foo jublu nan ko gërëm fun jublu nan ko gërëm foo tàbbi nan nu fa fun tàbbi nan la fa nekk nan la fun nekk nan la fa foo tàbbi nang nu gërëm fun tàbbi nang ko gërëm loo tàbbi nang ko gërëm lon tàbbi ko gërëm foo génn nan ko gërëm fun génn nang ko gërëm loo génn nan ko gërëm lun génn nang ko gërëm foo woote nang nu fa gis fun woote nan la fa gis nuy wusi nag di gërëm ngay wusi it di gërëm foo toll nang nu fa gis fun toll nan la fa gis foo toll nang nu gërëm fun toll nan la gërëm te bun la fàddooti bun nuy fàddu mukk yawit na nuy nuyoo ak saafonte karee fu nu jóg te nu lii may guddeeful dindi mukka kafar ngir yàlla ak Mustafa mii tax nga am li nga am te def ko ak may gu ànd say mbég sunu mbég te may fan wu gudd ba dee ame gëm may am na yow yàlla jullee ko musal gu rafet yeneen ba faw ak gaayam ak ku jëm fu mu jëm feetal nga xol yi ak kam yi feesal nga këy yi dell ak sa jur gi xëppu nga nu jur xëppu nga nuy lar xëppu nga nuy sér jox nga nu barke far nga sunuy lor se nga sunuy lor dootu nu gis lor mukkati mbàkke moo tax nu war laa gërëm te war laa bàyyee waxit laa ngir sa yéwén gi sant la war na gërëm la war na tagg la war na yaateenu mànki sa cant war na kuy dund war na ku dee te war na ku dee ba dekki yaataat ku dee bët koy dund yit bëgg koy dekk yit bëgg yow rekk a tekki yow yaa nu tekkil te yaa nu takkal ngir yaa nu rekkil nun sunu bon gi ba noppi waajal nu fam nu baaxal na yàlla yàggal mbàkke sa may gi doril nu kattan doril nu ak man ba nu feesal nun ni nu la bëggee ba bis bu nekk nu xëy te dikki la lu nekk nakki sa kër gi xamulaajo yàlla ngaajo fañ na sa aajo jox na la fal gi noo ame aajo ngir noo la aajo fajal noo aajo yépp ak sa barke sëriñ bi mbubb mu xar bul sànni jox ma ma sol man sab sagar doy na maa waajee kawal léegi kooseeru muy waaja kay bar sagar nga ko jox ndekoo joxul sab sagar amtil lu muy waaje buubal te xëpp ma sa mbubb yi sama kër te moo defar sama kër man moo ma teeweeji bu dul kon sa sagar yi ngay xaral di ma jox kon bale man mi le maa ngi weeja kay laajit wutal nu yóbbal bu dootul xaaja kay bëgg a jeeg te may ni yéere yi nuy waajee ka koo xam ne day laaj réere ka muy laaj réere la muy laaj du xam la muy laaj ku réere boppam réere boroomam réere moroomam xamul la muy laaj ku réere boppam réere moroomam réere boroomam xamul la muy laaj ndegam dafay laaj moo teye mu far laaj boppam te far laaj la mu yeyoo laaj te yow mi lay laaj xamal ki ngay laaj xam li nga koy laaj doorati laaj te sax koy laaj jëkk na laa laaj jox ko li muy laaj te def koy laaj du mu lay laaj ndare bàyyi laaj te def li muy laaj mu def li ngay laaj ku bëgg ku ba li muy laaj mu ba li ngay laaj ku def li muy laaj mu def li ngay laaj ku def li muy laaj du aajo ngay laaj ngir bala ngaa laaj am far la laaj jox naa la aw sas nga ba fa saw sas di ko joxee sas yu rëy akay laaj sas wu bayeeful màgg na jooyal màgg na tuubal tuuba di sag laaj waajile santal waajile tuubal wëragulaaxul dara akay laaj moo ko yoyoowul lëf ndare bërtal na muy wuteeg pal fi buur akay laaj buur ak a waaju ko bëgg warula bëgg lu dul la muy laaj te boo kedee laaj kët ma nga lay laaj buy xam la muy laaj ngay xam la ngay laaj la tee mu sant moo nga sant yal na la sant jox la la ngay laaj ma dal di tuubi man tuubi ruubi ku dal di tuubi am la mu daa laaj kuy laaji buuram na dem fa buntam taxaw fa buntam di tuuba kay laaj te bu mu xaddi mukk ka weddi xaddee ka weddi gënul ci koy laaj wutalawut buur bis boo amee buur gaaya la daa duur di bësa kay laaj loo mën a daj yow wutalawut yow ba xam-xam yow mboolem la ngay laaj saa soo amee buur yow dal di def buur te boo defee buur am la nga daa laaj ku xam la muy laaj ku ne da koy laaj muy joxe tey laaj yàlla ma muy laaj yàlla da koy jox lu nekk muy jox ku nekk akay jox boppam akay laaj muy doylu wëllis ku nekk wëllis lu nekk wëllis ku dul kanuy laaj sëriñ bi yow mii wuyu nu yow mii ngir mbakke yow mii yaa di kanuy laaj yaa ka kanuy laaj yaa la lanuy laaj may nu lanuy laaj yow mii lanuy laaj waa ji le diglul waa ji le teeyal saytaane baaxul dalay fexee nax saasu ji tee ngay bëgg amum may mu ni ca muy fasoo ko caara boo dee liggéeyal yàllaa ka sellal mu ni la wàccal wàcca ka jot sax boo dee fexee muñ ba jot ci sab añ mu la ab añ doo ka ñu koy jox ba ñu atee añ mu la bii añ daggala dub añ bul dogati ñax nga dal di wàcci ñu la wàcci nga des ni toj ci doo foo doo seeruloo nga dal di wàcc ñu far la wàcc nga des ni toj ci doo seeruloo sax yal na nu lii mooy yal na la lii mooy bul faale kuy mooy bul gëm la muy wax seytaane day mooy di dégle ak mooy di def ci xol luy waral jax-jax du bay te kuy bay mu tere koo bay mbaate mu far koy xëbal ba muy lox bu gone dee bay mu ni ko gii yey mënu la koo bay gone gërët ko waccu sa sam daw far bañatee ñëw xolam ba day wow fees ak nëx-nëx muslul ci yàlla yal na nu yàlla musal musal la ci mooy ak yi nëx murit yi jeena xol yépp jeena gëm yépp jeena sëriñ bi wallul xol yépp ngi jooy gëm yépp ngi jooy lislaam ngi jooy lii rëy na yëngul te ngeen ji sàmm moo di ba sàmm boppam te sàmm nekk ku mu àndal bu nu gisum ruur te bu am ruur gis bu nu ruur bu ko ruural nun noo di say liir te ko amee liir ba yooyaley liir di yuuxu buural buural tegal nu ay wi te may nu jàmm te fam nu tabal ci sab xol fabal nu ay wi ak lori ay wi jox gaayi ay wi ñu boole yor jël kuy fexe aw hay ba ma ko aw ay mu dëkke woy woy joo xam ni dogtil konu fasoo lor na dal lor jokoo la jël far ba dunu sax tal te kunu noonu na nga ko noonu te teg ko coona bu tànge niw xal te bu sunum noon xamate aw yoon nay réer a kay nuun ci àll tey xul xol yi seral ko xel yi dalal ko gëm yi wéral ko saytaane dàkkul penkoo ngi yuuxu soowoo yuuxu fépp a ngi yuuxu sëriñ bi wallul jégal nu may yi jébal nu may yi yokkal nu fan yi til nu ci ruu yi jële fi luy lor ak lépp luy jur ñàkk ak mer te ba fi ruu yi yóbbul yu bon yi yóbbul naqare yi yu nëx yi wàcc fi ruu yi dàq fi aw hay dàq fi ak moy fi ab saxal fi ruu samal nu xol samal nu cër sàmmal nu xel yi te sàmm ruuy may nga nu nooyi bul nangu nooyi may nga nu ruuyi bul nangu ruuy doo maye nangu may nu ñu nangu ak mbay mu nangu te wattu ruuy ëral nu kër yi ër ñi ci kër yi ër yi ci kër yi ër sunu ruuy sangeenu jàmm sàmmeenu jàmm saytoonu jàmm biigal nu ruuy ubeenu tawfiix ubeenu tawfiix xëppal nu tawfiix ci sunu ruuy yal na nga nuy bañ lenum lu nuy bañ bañal loo bañ tey fàtte ruuy rikk ci sag baax yow ki rëyu baax loola ki baax te ci ruuy mu ñuy njariñ moo di koomum gaaya gëm na nga muñ te diglu sab sang kon lee sox bu ñor a jibati sa dan na yow jox ko sab sox ak sa mbir te nelaw kon lee mu yee laaki rab ngay sant kay bégati te daan na yéexul rëxul moytil te ak fitalam du manki mukk bu téqee mépp mbir jubati sëriñ bi yal na ni mël jàmm sotti nu mbég téqal nu sox bu jubal mboolem sunuy mbirati buy sox ku nekk di bég buy téq ñépp di ree buy woote ñépp di bég kuy wuy jilee nga jote buy sox ku nekk di bég buy téq ñépp di ree buy woote ñépp di faf kuy wuy jilee nga jote tooyal nu faw naatal nu faw dundal nu faw saxal nu ci man jégal nu lépp jébal nu lépp yërëm nu fépp yaa waare yaa man banu ci kaw suuf nu sax ci kaw suuf saxal ci kaw suuf lu dara dul gën yow man nga lépp defal nu lépp nu jot ci lépp am lépp sañ man yaa jëkk lépp yaa mujj lépp yaa sàkk ñépp dolli nu kattan yaateewe lépp yaataawu lépp yal na sa lépp ndimmal saxal nun yaa mus la ñàkk yaa man la ñàkk yaa ëpp ñàkk yal na nga nuy ron def nu ñu dul jeex ñu am lu dul jeex mooy ci ku dul jeex ku bari ndollem yaatin yaatin képp ku ñuyitin yaatin ña koyitin yal na nga nuyitin yaa seeru yaa wan képp ku ñuy wan yaa wan ña koy wan yal na nga nuy wan ñàkku la man-man néewu la man-man yaa xapp man-man ña bari man-man nam nabi woo yow jéemantuwoo yow lépp nga man yow lépp nga àttan àttan nga lépp te man nga lépp defal nu lépp loo man lu jan-jan jébbal nu kattan boy tax nu àttan la bari àttan te dolli nu man ku nuy bala munoo góox yal na ko mbër wanne ko benn ku nuy bala munoo guuf yal na ko mbër guuf mu jóoru benn ku nuy siif bala munoo siif yal na ko mbër siif mu jeelu benn ku nuy fexee jañ bala munoo jañ yal na ko mbër jañ ci kaso benn yal na nu wuuf ni sunu lor fuuf ni ñu nu bañ fuuf ñu jeexe benn yal na nu mbër ñag te ñag sunum ñag ñaggaay nuy ñag nu mucc benn yal na nu roof njariñi waa suuf ak njariñal suuf nu rawe benn yal na nu mbër far far gaa yi nuy far boole sunuy bor fayal nu benn yal na nu mbër xëy ni cas lu gën mbay lu nu gënal mbay jébbal nu benn yal na nu mbër may lu nu gënal mbay te gën ci nun mbay nu seexe benn yal na nu mbër neex te lu mu wax neex lu mu defit neex mu neexe benn yal na nu mbër saf waxam ci nun saf jëfam ci nun saf nu safe benn yal na nu mbar buux njariñeku ceex ni nu ngërëm foox nu baaxe benn yal na nu barkeb mbëre ki barkeb ban baa ki barkeb mbay dale benn yal na nu yàllaak ña bën ni yàllaak ña xam gojak baak nangulle benn yal na nu buur ak gaaya ko soppak ña seeni mbir jak bégale benn yal na nu buur ak ña ca forob dog ci nu rawan ma benn yal na nu buur ak ña ca farub dog sexal dogu mbég nu wan benn yal na nu jub jag sax ci lu gaayu jub jag saxe ca benn yal na nu bokk gëm yàlla bokk jébbu lu bokk bàyyi ko benn xañ naa la lépp nga jox ma lépp yaa mata topp yaa jara jàpp bayu ma sab tool te ëpp nag mbool ña bayi toppoo ma yow mii fayoo ma yow mii xam naa ne yow mii yaata nañ ñépp koy moy na lay moy koy may na lay may yow la mooy ak may xacc sa bopp yaa atanug moy yaa atanug may yal na nga nuy may jàmm sa bopp musal nu cig moy musal nu cib jay te xëpp nuy may ci digg bopp yaa maye yaakaar yaa joxe yaakaar yaa yaakaar maye nga lépp ndam lu ne fab ko mbég mu ne fab ko yiw wu ne fab ko ni nu ko xëpp ndokk bi nuy bon faw te ngay gën yow mii te doo bon mu ko ka pëpp nongoo gu xam ko nongoo gu yëg ko nongoo gu dég ko saytu nu fépp musal nu nun ñii jariñ nu nun ñii jébbal nu nun ñii sutura sépp xam na nu sag baax gis na nu sag baax mos na nu sag baax doomayee sëpp dooma ya nangu may nu ñu nangu ak mbay mu nangu ak jub gu ëpp ak fan yu gudd ak yu sedd ak fan ak may yu tedd yu faf ni sëpp ak fan yu gudd ak yu sedd ak may yu tedd yu faf ni sëpp may nu sa bopp te may nu bopp bu ëpp bopp bu dul sa bopp yaa mata a yaa neexa yaa jara àndal yaa jara jàpp fu nu ne nay naat lu fa ne nay naat nuy weye kay naat ba dugg jannaat yal nañu nuy way fawaka may way nuy weye kay way ba dugg jannaat yal na nu jub lool amuk juboo lool sax ci juboo ba dugg jannaat fan yi na gudd xol yépp sedd nu sax ci tedd ba dugg jannaat yal na nu raw góor raw képp kuy góor sax ci ndama nguur ba dugg jannaat yal na nu dug yal na nu dëkk ngërëm lu màgg ak cant gudul dog ba dugg jannaat yal na nu dëkk ngërëm lu màgg ak cant gudul dog ba dugg jannaat yal na nu ànd ak mbooloo mu tedd ak jàmm ju dul ba dugg jannaat yal na nu mucc te sax ci mucc dëkk ci mucc ba dugg jannaat yal na nu barkeel te sax ci barkeel dëkk ci barkeel ba dugg jannaat yal na nu doylu te sax ci doylu dëkk ci doylu ba dugg jannaat yal na nu doyle te sax ci doyle dëkk ci doyle ba dugg jannaat yal na nu dundal te sax ci dundal dëkk ci dundal ba dugg jannaat yal na nu donnu te sax ci donnu dëkk ci donnu ba dugg jannaat yal na nu dund te sax ci dund dëkk ci dund ba dugg jannaat yal na nu yokku te sax ci yokku dëkk ci yokku ba dugg jannaat yal na nu donnu mboolem ña donnu ak ña ñu donnu te donnu jannaat te yal na nuy naat sunuy xolit naat nuy dund kay naat ba dugg jannaat dinaa ja dem tool te boo demee tool sa di bon lool lii ëpp naa def lii dal koy tuub yow mbaate doo góob te luy teree góob def ko de ak ndof fajar bu dee xar mbooleem ko des gor war naa fa boog der la xestu tey jëf nelaw ba bët set du maye ak set lu dul maye ak set mag waru koo def di bëgg ak fay di bëgg ak may te neru laa bay niru nga ab dof ku dul siyaare te bëggi daara akum siyaara asal dafay kaf siyaare yuy weer dem jekki ay weer du may murit leer du ko mayit lëf ku bëgg a far lëf na farlu as lëf ku farluwul lëf du mën a lëf ku bëgg daara takum siyaara dafay siyaara ànd ak jur ak jëf xamal ni kuy gëj fépp sang doo faj gàcce te doo daj ngërëm te doo saf yow boo bëggee daj ngërëm bu fay gëj sëriñ ku fay gëj du dégg jaajëf kumar yoreb goj te yooru lab goj mar koy faj xaw ko man faf murit dafay gëm te sopp sangam di dab bànneexam di ko yëti yëf di ko liggéeyal faw ak neexal ba ak fal di jébbu lay sëf ku làqagul lii te lii lay taxa am lii kenn mënu koo këf ku bëgg xam lii nabalu dul lii te lii tey daw ku koy gëf murit dafay dem mbaate ndawam dem mbaate du xam ndam ku ñàkk ndam af yow bala ngaa gëm kenn sori bon àndul ma wal man taalum murit af murit dafay gaaw ba mel ni kuy naaw loo wax mu naa waaw te dëkk